waaw mbokk yi ba tey ñi ngi fii ci kër sëñ Abdoulaye Diop xam nga sëñ Abdoulaye Diop Khass boo wootee di ngeen fi gis eh, ay kilifa waaye di ngeen fi gis tamit ay waykatu diine ñu am suñu xarit suñu doomu ndey Cheikh Saad bu Samb ñëpp ràññee ko macha allah mu ñëw teewle eh, eh, mbokkam si bés bi di sëñ Abdoulaye Diop Khass Cheikh bu bi nga ñëwee ci bés bi tey lan nga yëg waa am mbégte rek ndax sa xarit da ngay bëgg di ko fekk ci mbégte te tey ñëw na nañu Euh, xool sëñ Ablaye xam nañ ni ci mbégte rek la nekk te mbégam mooy sunu mbégte. Euh, ci loolu tey euh, maanaam yàlla def seen diggante ngeen dundee mu rafet lool jëflante ci tamit lu rafet tey nga ñëw tey bu dafa am loo xam ne ji koy jëmale ci bés bi ci ay kàddu si digganteem ak soxna si ko yàlla boole di soxna Soumboulou Bathily ci ay ñaan lan lay doon. waaw Soumboulou dama yàgg di ko wax ne ko lu baax di nga ko am. ndax euh, gëstu naa ko biir biti xam ni ku bëgg yonent bi la li coow bari bëri yëpp euh, xolam cofeel la ngi ci ëmb gu mu ëmbal yonent yàlla Muhammad te nit bu bëggee yonent bi na sa xel dal ci moom euh, te sëñ Ablaye ni nga koy gis li coow lay bëri yëpp buy déglu Karbala bi may way day tur ay rangoñam waaw loolu loolu muy xaaju guddi di di fajar waxtu ne bu dégloo may way Karbala day tuur ay rangoñam Euh, kon relation yi ñu yi ñu am euh, dafa xóot waaye dañ leen di ñaax rek di leen wax ne sëy lii lépp lu am solo la mais li ëpp solo mooy euh, yërmande ak bëggante te cofeel gu mu am ci sumbulu moo tax teraanga bi mu ko defal ñëpp gis nañ ko sumbulu yi gis nga tey àdduna yëpp bàyyi nañ ko xel mu joxoñ sa jàppalaay ne ko yow rek la kon bu ñu sàmmeeloon rek incha allah ñoom ñëpp ci kaw ci kanam la jëm incha allah